suuf ngir kirlaayal dund bi ak permis jëfu nit yu mel ni ndefar gi jumtukaayu tukki yi tàggum garab yi ak mbay mi dañuy génnee gaz bu ñuy wax gaz à effet de serre gaz yooyu dañuy dajaloo ci jaww ji te di bokk ci li waral soppeekum peex maanaam taw yi tàngaay bi ak ngelaw li te yooyu yépp ciy soppeeku mën nañoo nasaxal kirlaayal mbay mi ak dund gi wante at mu nekk fanweer ci téeméer boo jël ci gaz carbonique bi nit yi rabu àll yi ak usines yi di bàyyi ci jaww ji dañuy roofu ci gàncax gi gàncax gi dañuy napp gaz carbonique bi nekk ci jaww ji ngir màgg maanaam defar seeni banqaas seeni xob ak seeni reen su gàncax gi deewee ba seey yooyu yëpp dañuy dundal suuf si ak lu ñuy wax matière organique te matière organique boobu xaaj ba yëpp carbone la dundal suuf ak matière organique lu am solo la ci dundub yi matière organique day waral suuf bi di téye ndox ak ay ferñeent di tax suuf bi du gaaw a dee ba noppi di gëna nangu mbay jamono ji ñu nekk waxanday matière organique yooyu tollu nañ ci junniy miliyoŋu tonu carbone at mu nekk waxande yooyu ci lu toll ci ñeent bu nekk mën na tax ñu neenal lu tollook ñeent miliyoŋu tonu gaz carbonique biy dajaloo ci jaww ji loolu mooy mébétum programme bi ñu tuddee 4 pour 1000 ñeent ci junni te li ko tax jóg nekk kiirlaayal dund bi ak pex mi kon lu jaadu la ñu yokk ndencum karbon ci suuf si ngir yokk baaxaayam ak gëna mëna dundal nit ñi waaye itam yemale yokkute gaz à effet ci jaww ji ngir àgg ci jëm yooyu dañoo wara a wàññi ndaggum garab yi aar suuf si ci yàqute gi te xiirtal ci jëf yu baax yuy bàyyi xel mbay mi ak wurum bi te yokk ndencum karbon lu tolloog ñeent ci junni at mu nekk ngir loolu dañuy def yi ma leen di limal suuf si ak ay ponati gàncax ngir dundal ko te jëmbat ay garab ci biir tool yi ak digg ngir boole mbay ak yorum garab jëfandikoo gàncax yi dund ci suuf yu néew dool yi niki xeetu ñebbe yi tee ci suuf si gazu nitrogène ñu gën koo xam ci azote bi nekk ci ngelaw li te yokk màggaayu gàncax yi delloowaat suuf ci cosaanam ci jëfandikoo nëbal ak tos yi gën a indi matière organique jëfandikoo lu ñuy wax zaay maanaam gas ay kàmb sotti ci ndox wala tos wala nëbal ba noppi soog cee ji ay garab xeetu mbayun yu yees yooyu te neewu njëkk ñaare soxal nañu juróomi ak juróom ñaar tool ak lu ëpp ñett milliards ci doomu aadama yuy dund ci dëkku kaw yi waaye seen njëriñ ngir kirlaayal dund gi ak pex mi ñépp la soxal xayma ndencum carbone ci suuf si méngale xeeti mbayin yi ak réew mu nekk jël ay taxawaay ngir xiirtal baykat yi ñu leen di jëfe ay mbir la yu itteel baykat yi boroom koom-koom yi mbootaay yi gox-goxaan yi ak nguur yi ci wetu gëstukat yi jëm ci mébétum ñeent ci junni ngir kiirlaayal dund bi ak pex mi